ومن أحسن قولا ممن دعا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الله الله الله الله الله الله الله الله الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن على هداه مهتدى ما صبح بلا وما ليل سجى أما بعد أخواتي الفاضلات حبيبات العلم والحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا تحت ظل رحمته يوم لا ظل إلا ظله mbokk jullit yi ñi ngi sant borom bi tabaraka wa taala gën gaa rafet a cant di jullit di sëlmal ci yonentam Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak waa këram ak njabootam ak ay saxaabaam ak képp koo xam ne topp na si njub ga nga xam ne se lañ tegoon seen tànk li fee guddi gi ak bëccëg gi ñi ngi weccante gannaaw lool ñi ngi leen di nuyu nuyub lislaam yéen ñi nga xam ne yéen ay soppee xam-xam yéen ñi nga xam ne yéen a sopp dëgg ba tax ngeen jóge ci seeni barab ñëw teew ci jotaay bi ñu ngi leen di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nuyoo boobu ñu ci jiital suñu wayjur suñu kilifa bi nga xam ne moom lañ bokkal taabul bi suñu yaay Aïcha Mbay di ci toftal képp koo xam ne rek mi ngi ci jotaay bi di ñaan borom bi tabaraka wa taala ni ñu dajale ci palaas bi ñu nekk ay mbokk fekk jëmmam ji rek moo tax mu boole ñu keral ci keram ga kera ba nga xamee ne amul benn ker budul ker googu lu yomb borom bi la dañuy am mbégte gu mag ci daje ak yéen si barab bu barkeel bi baral bu tedd bi nga xam ne ni dañ koy compter ci benn yaay yi nga xam ne ni bokk na ci yaay yi ñu nàmpal ngir jàngat tomb boo xam ne ni bu am solo la boo xam ne jigéen ñi dañ ko war di jàngat saa su nekk rawatina jamono ji nga xam ne nii ci lañ nekk tomb boobu mooy almar al muslima baynal waajibil manzili wala amalil wazifi jigéenu jullit bi diggante warugar bi ko war ci kër gi ak liggéey bi nga xam ne nii moom la tegoo ci biti maanaam nan lay boole ñaari ñaari responsabilité yooyu fekk bu ci nekk dana ko jox gëdd ba nga xam ne nii moom la soxlawoo mbokk yi nga xam ne nag ñoom ñoo tànn thème bi am nañ tawfiq ci tànn giñ ko tànn ndax comme ni ngeen ko gisee thème bu am solo la waaye xam naa am nañ njuumte wala gàttañlu ci tànn giñ ko tànnal ki ko war a taxawee ndax wax dëgg yàlla ñu tuuti lañ ci taxawee thème bu tollu nii ci côté xam-xam ci côté expérience ba tax na ñi ngi ñaan borom bi di sàkku ci moom mu dimbale ñu kàttanal ñu bañ mën cee joxe loo xam ne nii ñun ci suñ bopp dinañ ci jëriñu waaye képp koo xam ne nii dégg na ko dana ci mën a jëriñu ñu ñaan ko moom itam borom bi tabaraka wa taala mu bindal ñu ci yool lu ko yomb la jéem nañoo xaaj thème bi wala séddale ko ci juróomi tomb gannaaw laltaay gi nga xam ne nii moom lañ koy laltaayal tomb boobu ba ca jiitu mooy al aslu fil mar'ati al qaraaru fi baytiha lii cosaan ci jigéen mooy mu des ci këram sàlloo këram ñaareelu tomb bi mooy al wajibatul manziliya lil mar al muslima warugar yi nga xam ne ni moom moo war jigéenu jullit bi ci biir këram ñetteelu tomb bi mu nekk tanbihaat la budda minha ay gendeeku yoo xam ne mënta ñàkk ñu joxañ ko mu làmboo lii tax ñu permettre jigéen mu mën a génn këram pour dem wuti ab liggéey ci biti ñeenteelu tomb bi muy almar al muslima wa wazifatuha al amali jigéenu jullit bi ak liggéey bi nga xam ne ni moom la yor ci biti juróomeelu pon tomb bi nekk al wasatiya bayna al wajibi al manzili wal amali al wazifi digg doomu gi nga xam ne ni moom moo war a am diggante warugar bi nga xam ne moo war jigéen ji ci kër gi ak liggéey bi nga xam ne nii moom la yor ci biti maanaam nan lay boolee ñaar yi fekk bu nekk dana ko jox àq ba nga xam ne nii moom la am ci laltaay gi dañuy wax ne diinay lislaam mooy diine ji nga xam ne yàlla moom la samp ci kaw suuf gërëmal ko jaamam yi nga xam ne ñoom la sàkk teg leen fi mu def ko mu nekk diine ji nga xam ne moom moo tëj yeneen diine yi jiitu woon mu def yonentam Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekk ki tëj yonent gi nekk yermande ñeel mindeef yépp diine boobu làmboo organisation boo xam ne nii bu matale la ak atte yoo xam ne ni yu màndu la ak tëralin yoo xam ne yu ànd ak réalité la nga xam ne jamono ju nekk day valable mu nekk loo xam ne nii dafay bàyyi xel nature doomu aadama bi ak équilibre bi nga xam ne ni moom moo ci war a am ak soxla yi nga xam ne ni moom moo mooy ay soxlaam diggante doomu société bi moo xam ñu góor ñi la wala jigéen ñi diine islam nekk loo xam ne ni lu yëkkati dayob jigéen la ba tax na mu dénkaane ñu rafetal jëmale ci moom diine lislam nekk ko diine boo xam ne bu teral jigéen la teg ko ci place bu kawe boo xam ne nii amul benn xeet ci xeet yi jiitu woon boo xam ne mosoon na koo jox jigéen wala benn civilisation ci civilisation yi nga xam ne ni jotoon na fee jaar boo xam ne ni joxoon na ko jigéen li sabab lool mooy place boobu ak dayo boobu ki ko ko jox mooy borom bi nga xam ne ni moom moo ko bind sàkk ko xam li nga xam ne ni moom moo yell ci moom ak li nga xam ne ni moom la méngoo mu teral ko comme ni nga xamee ne noonu la teralee xaajam bi nga xam ne ni moom la bokkal société bi te muy góor borom bi tabaraka wa taala mu ne wa laqad karramna bani aadam ñun bi yàlla de ñoo teral doomu aadama leeral lu mel ni nekk lu am solo loo xam ne nii dafay jaadu ñu di ko fàttali jigéen ji saa su ne rawatina jamono ji nga xam ne nii noonu lislaam bi ak ñenn ci jullit ñi nga xam ne nii yàlla daf leen a nattoo ak sàggante songu nañ ko lislaam songu nañ ko jigéen ak lu jëm ci moom ndax njortu nañ ne dafa am benn guerre boo xam ne ni l'islam daf ko déclaré contre jigéen jël góor teg ko ci kaw jigéen jox ko ay àq ak ay yelleef yu bari yoo xam ne ni joxu ko jigéen waaye dafa xañ jigéen lu bari loo xam ne ni waroon na ko mën a am loolu yóbbee ñenn ci jigéen ñi nga xam ne nii xóotaluñ seen xalaat ci teraanga gi nga xam ne ni yàlla teral na leen ko ñu dëkk di sàkku ay àq yoo xam ne ni foog nañ ne luñ moom la fekk moomuñ ko ndax amul départ boo xam ne charia daf leen koo may waaye la ci ëpp tontu ak wuyu ak wommatul guñ wommatul occidentaux yi la ba nga xam ne du leen jural mukk texe fii ci àdduna wala mu leen di jural ak dal wala mu mën a defar seeni mbir moo xam yi jege wala yu sori lii ab laltaay bu gàtt la boo xam ne moom lañ doon ibbee thème bi dañuy dugg ginnaaw lool ci tomb bu njëkk bi nga xam ne moom lañ waxoon ne moom mooy al aslu an tabqal mar'atu fi baytiha wa alla taxruja illa li xaaja li nga xam ne moom mooy cosaan mooy jigéen ji toog ci këram des ci këram bañ a génn kër googu lu dut soxla soo xam ne ni moom moo koy génnee li cosaan ci lool di ay texte yu bari yoo xam ne yenn yi ñu ngi ci alquranul karim yeneen yi ñu ngi ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu sax biñ ciy jiital mooy bi borom bi azza wa jalla di wax jigéenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ummahatul mu'minin te képp kuy jigéen doonati jullit bokk ak ñoom àtte boob waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula na ngeen sax ci seen kër yi te bu leen génn ci mbedd yi di baraj baraj yi comme ni nga xamee ne yéeféer yu njëkk yi noonu lañ ko daan defee aay bi boroom xam-xam yi dañ ciy wax ne dafa am déggin bu xóot boo xam ne nii jigéen ji da ko cee war a déggee mooy ne yàlla dafa jël kër yi askanale ko ci jigéen ñi ci aay bi waqar na fii bu yuutikun na na ngeen des ci seeni kër te liñ miin te muy majorité majorité bi mooy kër yi góor yi ñoo leen di moom waaye askanale gim askanale kër yi jigéen ñi mooy ne dañ caa war a des dañ caa war a sax dañ koo war a takkoo moo tax borom bi askanale kër yi jigéen ñi ànd ak na li ëpp ci moomeel gi ci loxoy góor yi lay nekk ibnul jawzi rahimahullah di boroom xam-xam bu mag day wax ne yanbaghi lil mar'ati an tahdara min al xuruji mahma amkanaha jigéen ji dafa war a moytu di génn dafa war di des ci këram di moytoo génn kem kàttanam ndax lan mu ne fa innaha in salimat fi nafsiha lam yaslami nnaasu minha moom su fekkoon ne jéem na góorgóorlu ba nga xam ne moom su génnee dina mucc ba du tàbbi ci yenn ci yi nga xam ne borom bi daf ko ko tere woon ñam fekk ca mbedd ma ñam fekk ci société ba ñoom mën nañoo bañ a mucc ci lool mën nañoo fitnawu ci moom ñaareelu texte bi nga xam ne nii daf ñuy jàngal ne jigéen dafa war a des ci këram mooy waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa tamna'u ima allahi masajid allahi wa buyutuhunna xayrun lahun mu ne bu leen tege bu leen tere jigéen yàlla yi ñuy dem ci néegi yàlla yi te mooy jàkka ya dafa julli waaye ñu des ci seen kër yi moo gën ci ñoom beneen xadis tamit feddali ko boo xam ne jigéen ji dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man de damay bëgg di ñëw di julli ak yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nga des ci sa kër jullee fa de moo gën ci yow nga des ci néeg ba gën a ruqe ci sa kër jullee fa moo gën ci yow nga jullee ci néeg bi nga xam ne moom moo gën a bunte nga jullee ci néeg bi nga xam ne moom moo gën a bunte moo gën ci yow nga jullee ci digg kër gi nga jullee ci digg kër gi moo gën ci yow nga jullee ci sa jàkkaay xeet sa jàkkaay famille waaye nga jullee ci sa jàkkaay xeet moo gën ci yow nga ñëw julli ak man ànd ak yoolu julli ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu toll mbokk yi loolu lim ñuy jàngal mooy ne yool bi nga xam ne nii julli mbo julli ci mbooloo am na ko su doonu toon julli ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek ak la ca nekk ci ngëneel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeralal nañu ci beneen xadis boo xam ne daf cay wax ne jullik mbooloo gënee na jullik kenn ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar waaye mu garantir jigéen ji ne ko su fekkee ne des na ci këram joxe fa farata boobu noonu ànd ak multiplier biñ ko multiplier góor ñi moom loolu moom moo gën ci moom kon nga déggee ci ne jigéen jooju dana am lu ëpp ñaar fukki daraja yooyu ak juróom-ñaar comme ni ko boroom xam-xam yi dëgërale kon mbokk yi lii daf ñuy gën a dolli ñaax ñu des ci kër yi ci yi nga xam ne nii du obligatoire wala du soxla mooy waral génn gi sagam li nga xam ne ni moom mooy julli ak dayo gim am defee ko ci mbooloo ak yool gim am fànqal nañ ko jigéen ngir mu mën a des ci këram kon leneen du dul moom waxi noppi ñaareelu tomb bi mooy warugar bi nga xam ne ni moom moo war jigéenu jullit ci biir këram mënuñoo ñàkk a tënk ndax waxtu bi dafa xaw a limité wu jigéenu jullit gi na yëg ne liggéeyam bi nga xam ne mooy bi cosaan message bi nga xam ne ni moom mooy bi sax ñu ngàll ko ci loosam moom mooy këram mooy li nga xam ne moom lañ koy njëkk a laaj mu yëg ne tamit liggéey bi bi ko war ci këram ci liggéey yi gën a tedd la bokk ba ci ñi nga xam ne ay économiste lañ dañoo jàppee ne liggéeyu jigéen ci këram dafa nekk luy jur ab koom ci am réew comme ni nga xamee ne liggéey jigéen wala warugaru jigéen ci këram dafa am day dugg ci maanaa bi nga xam ne ni liggéey ci jëmmi boppam daf koo am pour mu bañ a jàpp ne rek li fekk nekkul dafa génn gàddu saagam dem ci biti duñ tuddee ne moom kat ab liggéeykat la fekk na bam nekkee ci biir këram tamit mi ngi nekk ab liggéeykat moo tax lenn ci économiste yi nga xam ne ni dañoo nekk États-Unis dañoo defoon benn jàngat boo xam ne ñu ngi ko amaloon 1985 lañ jubluwoon ci daje boobu mooy jàngat payoor gi nga xam ne ni jigéen mérito na ko su fekkee dafa toog ci këram doon xool bu boobaa lan lay war a tollu ci ay chiffres yoo xam ne ni suñ ko ko doon fay dana méngoo dana dana mérito lool. ñu gis ne dana tollu ci cent quarante cinq mille dollars boo xam ne nii danañ ko ko war a mën a fay at bu jot cent quarante cinq mille dollars soo ko doon xayma ci CFA yaakaar naa lum néew néew dina tollu ci cinq cent vingt deux millions cinq cent vingt deux millions yoo xam ne nii gis nañ ne jigéen ji mérito na ko jamono yi jim toogee ci këram di taxaw taxaw di taxaw ci liggéeyu këram li tax mooy gis nañ ne su fekkoon ne jigéen xëy na def grève ne sama liggéeyu kër tey duma ko liggéey kon dinañ gis ne àdduna bi yëpp dana jaxasoo ndax kër yi danañ tilim doom yi dinañ xiif liir yi bébé yi danañ des ci seen lal yi di jooy duñ am ko leen nàmpal dinañ gis ay jali montagne yére yoo xam ne ni yu tilim la duñ am ko leen fóot naka noonu itam lekk gu normal gu nit lekk dana jafe waaye ndox mu sell bu nit naan itam dana nekk nii loo xam ne nii lu jafe la li ëpp solo rek mooy jigéen ji yëg ne ak som boobu nga xam ne ñoom ñi defoon jàngat boobu tënk nañ ko ne lum néew néew jigéen ji waroon na di ko am payooru toog gim toog ci këram loolu xëy na lu lu nekk maddi torop la loo xam ne nii ci àdduna rek la yam loo xam ne lu muy téye la xëy na faj ci ay soxlaam mu jeex waaye li ëpp solo mooy mu yëg ne loolu ci boppam jaamu yàlla la goo xam ne nii su fekkee sellal na ko te borom bi rek tax dana am lu ko multiplier dizaine dizaine fois ndax al ashar al hasanatu bi ashri amsaliha benn jëf ju baax soo ko defee ñu multiplier la ko dix fois borom bi nee na dina ko multiplier ca kem sax lu ko soob loo xam ne dana ëpp loolu fuuf kon bum jëndee mukk payooru àdduna yoolu toog ci këram taxawee warugar bi nga xam ne ni moom moo ko war ci këram ndax loolu moom moo koy jural ngërmande boromam moo koy jural ëllëg aljana joo xam ne ni fa lay dëkk di bànneexu ba faaw dinañ tudd ci lenn ci warugar yi nga xam ne ni moom moo war jigéen ji wala yee ca gën a feddaliku loolu ba ca jiitu mooy waajibaatuha tijaaha rabbiha warugal gi nga xam ne ni moom moo war jigéen ji jëm ci boroomam loolu moo góor ñoo ca yam santaane yi nga xam ne ni moom la yàlla sant góor moom la sant jigéen lu dut àtte ya nga xam ne ni daf ko caa seppi ndax mooy cosaan bi nga xam ne ni moo tax yàlla bind doomu aadama wàccee ko ci kaw suuf te mu ne wama xalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun bindu ma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma kon warugar bi njëkk ci jigéen ñi jullit ci biir këram mooy mu taxaw ci santaane yàlla yi daw moytu ay tereem taxaw ci jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell ca julli ya ca koor ga ca saraxa ya ca azaka su ko mënee ca aj màkka ak lépp loo xam ne borom bi daf ko ko sant te mu nekk loo xam ne nii lu koy jural ngërmandem la point bi xëy na su suñ ci yegsee dina jaadu ñu fàttali mbokk jullit ñi ànd ak seen xir ci yiw seen xir ci xam dëgg feddaliku gu muy feddaliku ci ñoom sàkku xam-xam ndax borom bi mënuñ koo jaamu jaamu gi nga xam ne moom la bëgg ci ñun ñu jaamoo ko ko lu dut dañ ko xam dañoo xam atteye ca aju dañoo xam la nga xam ne ni moom moo koy defar ak la nga xam ne ni moom moo koy yàq ak jaamu yàlla yooyu su fekkoon ne dem na ba am ak yàqute gu ci dugg nan lañ koy jubbantee loolu mënuñ ko xam mukk lu dul dañoo jàng xam-xamu sharia bi nga xam ne nii dafa nekk farata ci jigéen comme ni mu nekkee farata ci góor mu xam ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslim sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit góor ga daf caa dugg jigéen ja dugg ci am na ci sax yoo xam ne ci jigéen ji lay gën a feddalikoo ndax yi nga xam ne nii farda ayn la ci moom nga xam ne ni kenn mënu ko caa wuutu ndax am na ci yoo xam ne am nañu ko ca mën a wuutu lu mel ni nu ñuy sangee néew ak ya ca aju xëy na ñenn ñi suñ ko xamee mu wàcce ñi ci des waaye lu mel ni jigéen ji nan lay defaree ay jaamu yàllaam ba joxe ko ci anam bi nga xam ne borom bi noonu la ko bëggee jigéen ji nan lay defaree ay jikkoom xam lan moo ciy sukkandikoo kaayam ci alquran ak sunna jigéen ji nan lay defaree doxalinam ci diggante ñi ko wër moo xam wayjur la moo xam borom kër la moo xam njaboot la moo xam ay dëkkandoo lañ faawu balaa jigéen ji di xam yi mu nangoo jàng diineem ji nga xam ne ni moom moo ko leeralal lool gis nañ wala ñi ngi dégg lu bari ci mbokk yi nga xam ne ñi ngi jàpp ne ñi ngi góorgóorlu ci sunna ñuy tàbbi saa su ne ci mbir yoo xam ne ni li ko sabab mooy ak réer ñàkkaa xam ñàkkaa jàng léeg-léeg nga gis ci koo xam ne mazharam kawam dana sàlloo ak charti sol yi sàlloowin goo xam ne nii bu mat lay doon boo xam ne nii di nga jàpp ne li diineem aajowoo yépp xam na ko fekk ma ngay tàbbi ci erreur ci masala yi gën a ndaw léeg-léeg ci julli léeg-léeg ci koor léeg-léeg ci doxalin ba ci léeg-léeg nga dégg dégg ci koo xam ne nii dafay dem ci njabarkat wal iyaazu billah ndax loolu ñàkk a xam moo koy yóbbee nit ki yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ki nga xam ne ni jug na rek dem ci njabarkat mu wax ko moo xam gëm na wala gëmul kook bu jullee ñeent fukki julli kenn du ko ko nangul loolu rek doyoon na mbugal waaye mu ne su fekkee ne dem na mu wax ko mu dëggal lam wax mu ne kook moom na xam ne weddi na li nga xam ne moom la yàlla wàccee ci man mooy ne kon génn na ci diinay lislaam kon dañuy delluwaat di fàttali mbokk jullit yi waru garu sàkku xam-xam bi nga xam ne nii tegee na ci loosu kenn ku nekk ci ñun ñu utal ko waxtu ci suñu dund boo xam ne faaw ñu dagg ko bu jotee ñu jox ko ko mën cee xam li nga xam ne nii moom moo aju ci ñun ci ay àtte diine ak yi nga xam ne ni moom lañ mën a defaree suñu aduna ndax xam-xamu sharia ñaar yépp la làmboo naka noonu itam ñi ngi proposer mbokk yi nga xam ne ni ñoom ñoo ŋànk mbootaay bi wax dëgg yàlla seen liggéey rafet na waaye ñu boole woon ci seeni programme ay jotaay yoo xam ne jotaay yu xam-xam lay doon yàlla baaxee na leen ci jigéen ñi ñoo xam ne jàng nañ seen diine ba yegg ci niveau yu kawe yoo xam ne mën nañ amal ay téere yoo xam ne nii dafay dafa jagoo atte yi nga xam ne nii wala dafay wax ci atte yi nga xam ne nii jigéen ji moom la jagoo lu mel ne ahkamu nisa bu ibnul jawzi nga xam ne lu bari ci atte yi nga xam ne ni jigéen ji moom la war a xam ci diineem ak adunaam yépp leeral na ko fa ñu am programme boo xam ne ni danañ ko ci dugal lu mën a dugg tamit ci ziyaaraat yi nga xam ne dañ koy organiser par weer la mu am ci jotaay yoo xam ne ni jotaay yu xam-xam lay doon yoo xam ne leeral masala yi gën a xóot léeg-léeg ci dundu jigéen lu mel ne lu jëm ci mbarag lu mel ne lu jëm ci ëmb ak wasi nag yi nga xam ne ni moom moo ci a moo ci aju kon loolu moo doon warugar bi nga xam ne ni moom moo njëkk ci jigéenu jullit bi ci këram ñaareelu warugar bi nga xam ne ni moom moo ko war ci këram mi ngi jëm ci borom këram ndax thème bi ñi ko tënk ci femme ak ménage te mooy ki nga xam ne ni mi ngi ci biir kër di sëy ba pare nar koo boole ak beneen liggéey boo xam ne ni daf ko yor ci biti kon warugar yooyu nga xam ne nii am na ko ci borom këram wala àq la ci borom këram boo xam ne nii moom da ko ko war a mataleel xëy na dinañ ci tudd yi ca gën a fes ba cay jiitu mooy xaqul qawaama mooy jigéen ji reconnaîtreal borom kër gi kilifteef gi nga xam ne ni yàlla moom la ko teg mu am ko ci kaw jigéen ji yàlla tabaraka wa taala mu ne ar-rijaalu qawwaamuuna ala an-nisaa'i bima faddala allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwaalihim góor ñi ñoo am kilifteef ci kaw jigéen ñi ci ni yàlla gënalee lenn ci ñoom ca kaw la ca des wala kaw ña ca des ak ni nga xamee ne góor ñi ñoom ñooy financer seen xaalis moo tax jigéen ji na moytu lu mën di xëccoo góor gi ak góor gi àq boobu nga xam ne ni yàlla moom la ko ko jox te muy àqu kilifteef mu nangul ko ko nangoo wommatu ci ronam nangu ko respecté ndax loolu mooy li nga xam ne nii moom moo koy jariñ waaye xëccoo ak moom àq boobu noonu du ko jural lu dut loraange ñaareelu warugar bi nga xam ne nii jigéen ji war na ko ci biir këram tam jëm ci borom këram mooy mu topp ko ci lépp loo xam ne nii mooy yàlla newu ca ndax topp borom kër loo xam ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf na yool bu rëy moom moo ci nekk su fekkee ne jigéen ji amal na ko mooy jigéen ji su fekkee topp na boroom këram ci lépp loo xam ne moom la bëgg ci moom waaye dañ koy tënk su fekkee ne mooy yàlla nekku ca amaa su fekkoon ne daf ko sant loo xam ne nii mooy yàlla daf caa nekk bu boobaa doonut am àq ci topp ko ndax la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xaaliq duñ topp ki nga xam ne mindeef la ci lépp loo xam ne ni luy jur meru aji bind gi la yent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko compter ci melokaan yi nga xam ne ni jigéen ji su ko melowoo ëllëg yowmal qiyam dinañ ko ibbil bunti aljana yi ne ko dugg duggal ci bu la soob ndax dafa waxoon ida sallatil mar'a xamsaha wa saamat shahraha wa xafizat farjaha wa ataat zawjaha qila laha yowmal qiyama udxilil jannata min ayi abwaab min ayi abwaabil jannati shiiti jigéen ji su fekkee dafa julli waxtu juróomam woor weeru kooram sàmm payam topp ndigalu borom këram ëllëg yowmal qiyaam dañ koy ibil bunti aljana yi ne ko duggal ci bu la soob kon yool bu rëy la am ñetteelu warugar bi nga xam ne ni dafay war soxna si jëm ci borom këram mooy alqaraaru fi baytiha illa bi iznihi mu des ci borom ci këru borom kër gi lu dul daa am ndigal bu koy may mu génn ci kër gi mooy ne bu mu génn ci kër gi lu dul borom kër ga daf koo jox ndigal mu mën a génn ñeenteelu warugar bi nga xam ne ne dafay wat jigéen ji ba tey jëm ci borom këram mooy mu bañ a dugal kenn ci biir kër ga lu dul daf caa am ndigal yent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benn xadis ne wala ta'zan fi baytihi illa bi iznihi jigéen ji warta nangoo dugal ci biir këru borom kër gi lu dul ki nga xam ne ni jox na ko ndigal mu mën a dugg ci biir kër ga loolu nekk point bu am solo boo xam ne ni soxna yi war nañ koo bàyyi xel naka noonu itam bokk na ci warugar yi nga xam ne ni dafa war jigéenu jullit bi ci biir këram mu jëm ci borom kër gi mooy almuhafazatu ala mali zawjiha sàmm alalu borom këram yàlla tabarakatu wa taala mu ne arrijalu qawwamuna ala nisa bima faddala allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ba yegsi xaafizatun lil ghaybi bima xafiza allah sàmm li nga xam ne moom lañ leen bàyyee sàmmin wu rafet sàmm li nga xam ne yàlla ngàll na ko ci ñoom ñu war koo sàmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey muy wax ci jigéen ñi nga xam ne ñooy ñi gën ci jigéen ñi ci xadis boo xam ne ni tudd na ci ay melokaan waaye bi ñu ci yitteel ci point bi mooy wa ida ribta an wa ida ribta anha xafizatka fi nafsiha wa malika mu ne bokk na ci jigéen ñi nga xam ne ñoo gën mooy su seen boroom kër génne bàyyi leen ci kër gi dañuy sàmm seen bopp waaye dañuy sàmm alal ji nga xam ne ni boroom kër gi bàyyi na ko ci kër gi mbiru sàmm alal boobu nekk loo xam ne ni lu am solo la xëy na dana am ay tomb yoo xam ne ni da ciy aju bokk na ci defar li nga xam ne ni moom moo nekk ci kër gi sàmm matériel yi nga xam ne ni moom moo nekk ci kër gi bañ nangu waa ji di jënd matériel yu baax matériel yu cher di ko indi ci kër gi nga sàgganee ko ba xale yi di ko yàq wala ñàkk koo toppatoo ba matériel yooyu nekk loo xam ne ni luy yàqu lay doon naka noonu itam ñàkka pasar pasare ak yàq alal ji nga xam ne ni moom la waa ji di fàggu di ko indi ci kër gi naka noonu itam bañ a teg góor gi loo xam ne ni du ko àttan ci ay vraiment juróom benneelu àq bi nga xam ne ni dafay wat jigéen ji jëm ci borom kër gi mooy almuamala alxasana rafetal doxalin bi ngay doxalee ak moom bokk na ci mbir yi nga xam ne ni dina am fekk jigéen ji rafetal na jëmale ci borom këram mooy mu jàppal ko ngant su fekkee borom kër gi dafa juum ndax ni jigéen di juumee la góor di juumee doomu aadama moom moo matut comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee mu ne kullu ibnu aadama xataa doomu aadama yépp dañuy tàbbi ci njuumte naka noonu itam jéem koo giifal saa yu xamee saa yoo xamee ne dafa mer dalal ko naka noonu itam di ko wan ak bëggeel ak cofeel di ko wan tamit ak respect ba tey ci mbir yi nga xam ne ni dafay rafetal nekku jigéen ji ci digganteem ak góor gi mooy mu di ko wax wax yu teey wax yu lewet wax yu nooy naka noonu itam di ko muñal muñ yu dëggu yoo xam ne ni yu taaru lay doon naka noonu itam dox ci lépp loo xam ne nii lu koy jugal lu koy jural mbégte la lu koy kontaan loola lu mel ni di fexe di taaru saa su ne ci kanamam di defar boppam di fexe di xeeñ lu neex di fexe léeg-léeg sax mu def ay fuddan yu rafet naka noonu itam di toppatoo boppam euh ak lépp loo xam ne nii rek luy jural borom kër gi muy koy xool di bég la ndax yent bi sallallahu alayhi wasallam ba tey waxoon na ci jigéen ñi nga xam ne nii ñi gën ci lañ bokk mooy jigéen joo xam ne nii borom këram su ko xoolee kontaan léeg-léeg nag mu nekk mayug yàlla goo xam ne yàlla da koy may jigéen ji ba mu bindoo noo xam ne nii ku ko xool kontaan waaye léeg-léeg nit ki tamit mel ni man faaw mu soxlawoo di defaru di jekk-jekkal ba taar mën a nekk ci moom ba borom kër gi saa su ko xoolee bekk xëy na nag jigéen ñu bari wax dëgg yàlla point bi xaw nañ cee am tuuti sàggante rawatina ñi nga xam ne ni ñoom ñooy génn di liggéey xëy na dina ñëw ci kanam nga xam ne jigéen ji li muy sonn mooy heure bi muy xëy daal yi rafet heure boobu la koy sol yére yi rafet heure boobu la koy sol parfum bu neex heure boobu la koy laal waaye su wàccee li muy yittewoo mooy waañ wi kon jëkkër ji jamono yi mi ji muy yegsi li mu fay fekk mooy saxaaru rosi waaye du cuuraay buy xeeñ waa sër ak t-shirt xëy na sax temps yi sa fi mu ne sër xaw naa kii dafa mel ni jupp fi mu ne ak t-shirt moom moo gën a bari kon wax dëgg yàlla lu mat a bàyyi xel la sagam borom kër yi ñoom ñoo moom biti gi buñ génnee li ñuy gis ci biti gi du ñàkk mu fitnaan leen dinañ soxlawoo buñ ñëwee ci kër gi wax dëgg yàlla fekk lu raw li nga xam ne nii moom lañ gis ci biti ba nga xam ne nii seen yoon dootu nekk ci biti ci biti loolu dana leen yombalal ñu mën a sajj seeni xef ba tey bokk na ci mbir yi nga xam ne nii dina war jigéen ji mu wala day bokk ci yi nga xam ne nii day rafetal am nekkam mooy muy préparer waa ji place bu calme boo xam ne nii bu muy mën a noppaloo la bu muy mën a dalloo la bu muy mën a nelawee la saa yu bëggee nelaw loolu itam day bokk ci yi nga xam ne nii jikko yi jigéen ji wala rafetal ba nekk ak borom kër gi nekkin wu rafet juróom ñetteel bi ci àq yi nga xam ne ni dafay war jigéen ji jëm ci borom këram mooy mu sàmm ay secret bañ di génne lenn ci secret yi nga xam ne ni góor gi am na ko naka noonu itam sàmm deram ba bañ di wax ci moom lenn loo xam ne ni luy tilimal deram la wala mu koy ñaawal juróom ñeenteel bi ci mbir yi nga xam ne ni dafay war jigéen ji digganteem ak borom këram mooy mu taxaw ci liggéeyu kër gi liggéey yi nga xam ne nii mënta ñàkk kër gi normal maanaam liggéey yooyu faaw mu taxaw wala mbir yooyu faaw mu taxaw pour kër gi mën a nekk kër goo xam ne nii kër gu normal la kër gu organisé wu la lu mel ni yittewoo togg gi naka noonu itam setu kër gi naka noonu itam organisé kër gi ba nga xam ne nii du nekk lu jaxasoo du nekk loo xam ne ni borom kër gi su dugg see découragé wala mu njëkk ak xat ak yeneen yu dul yi ci mbir yi nga xam ne ni dafay war ci jigéen mu taxawee ko jëmale ko ci borom këram bi ko fukkeel mooy jigéen ji wuyu borom kër gi saa yu ko sàkko ci lal bi loolu tamit nekk loo xam ne nii àq la boo xam ne nii góor yi dañ koo moom jigéen ñi war di leen ko jox saa yuñ ko soxlaa moo tax sax rëbb di tegee ci kaw ki nga xam ne nii boroom këram sàkku na ko mu gàntal ko fekk am sabab bu tax lu dut fekk dafa nekk koo xam ne ni dafa nekk ci mbaax wala mu nekk ci kooruk farata wala mu feebar feebar boo xam ne nii day loru su fekkee ne ànd na ak borom kër ga bu boobaa mu xool num négocier ak borom kër gi ba xamal ko ne ko ngant yi kat tege na sama kaw ba duma la mën a wuy ci li nga xam ne ni woo nga ma ci wa illaa àq la boo xam ne nii moom moo ko moom saa yu ko soxlaa jigéen ja war na ko caa wuyu xëy na si tënk su fekkoon ne waxtu yu maye na ko dañuy gis ne mbir yi yépp dénkaane bi nga xam ne ni jigéenu kaw kaw boobu dénkoon na ko doom ji ba muy sëyi tënkoon na mbir yi tam nekkoon fukk xëy na du ñàkk ku delluwaat ci dénkaane yooyu dana ca fekk lu gën a yaatu yi nga xam ne ni moom lañ tudd ñetteelu àq bi nga xam ne nii wala ñetteelu warugar bi nga xam ne ni dafay war jigéen ji ci biir këram mooy warugar bi dox digganteem ak njabootam ñu xam ne jigéen ji warugar bu mag bu màgg moo koy xaar ci njabootam moo tax diine l'islam dafa leeral àq bi nga xam ne nii doom am na ko ci waajur globaliser ko boole ci góor ak jigéen waaye àqu jigéen ba gën caa feddaliku ndax jigéen ji ni mën a jeexatale ci doom ji góor gi melu ko ni mën a jeexatale ci diineem ni mën a jeexitalee ci ay jikkoom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma min mawludin illa wa yuladu ala alfitra fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi mu ne amul kenn kuy judd lu dul dafa judd ci diine lislaam fekk dafa nekk ku set wecc mu ne waajur yi ñoom ñoom ñoo koy def mu nekk ab yahud wala ñu def ko mu nekk ab nasaraan wala ñu def ko mu nekk ab juif naka noonu tam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ku nekk ci yéen sàmm la waaye danañ ko laaj ëllëg la nga xam ne ni moom la doon sàmm mu ne war rajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati góor gi sàmm la ci waa këram waaye ëllëg danañ ko laaj la nga xam ne moom la doon sàmm mu ne waaye wal mar'atu ra'iyatun fi bayti fi bayti zawjiha wa mas'ulun 'an ra'iyatiha jigéen ji tamit sàmm la ci biir borom ci biir kër borom këram ëllëg danañ ko laaj tamit la nga xam ne nii moom la doon sàmm moo tax yaay ci boppam dafa gàdd ci loosam defar ab société tabax ab société boo xam ne nii société bu musulman lay doon société boo xam ne nii dafay dox ci luy développé diine ji nga xam ne moom la yàlla ci samp ci kaw suuf te muy diine l'islam tabax société boo xam ne nii dafay yëkkati drapeau wu l'islam ba ci kaw mu téye ko moo tax danañ tënk li gën a fes ci mbir yi nga xam ne nii day war yaay ji jëm ci doom ji te muy mu yar ko nampatal ko toppatoo ko ci bépp wet ci wet yi nga xam ne nii moom la xale bi tënku maanaam bépp wàll ci wa wàllu xale bi bi ci jiitu mooy aljaanibul imaan yi mooy yaay ji jéem a yar xale bi tàggat ko ci jëmbët ci biiram pas-pas bu set ngëm yàlla gu dëggu jaamu yàlla gu jub ci di ko xamal ki nga xam ne ni moom mooy boroomam naka noonu itam di ko xamal ki nga xam ne ni moom mooy yonentim sallallahu alayhi wa sallam ak lan mooy waru garam ci taxaw ci yi nga xam ne ni yoo la yoo la yàlla santaane ak taxaw ci yi nga xam ne ni yoo la yàlla tere ci âge bi nga xam ne nii âge bu teel la ci compréhension bi nga xam ne nii bi tolloo ak âge am la ndax xale bi am ñetti at ngay wax ak moom ci lu jëm ci yàlla du yem ak xale bi am juróomi at ngay wax ak moom ci lu jëm ci yàlla kon ku ci nekk âge ba mu tollool ngay wax ak moom ci niveau boobu noonu da ngay gis ne ni luy jëriñ la ndax yàlla daf ne yaa ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi nga xam ne ni da ngeen a gëm fegal leen seen bopp safara waaye ngeen fegal seen bopp safara. ñaareelu wàll gi nga xam ne ni yaay ji waru garam la mu taxawu ci doom ji mooy aljaanibu suluki mooy mu tabax doom ji ci ay valeur yu rafet ay principe yoo xam ne ni yu islaamee la naka noonu itam ay jikko yu rafet waaye mu tàggat ko ci lool ci at yam gën a teelee naka noonu itam wàll gi nga xam ne ni day war ci yaay ji mu taxawu ci doom ji mooy aljanibul ijtimai mooy mu yar xale bi ba xale bi xam nan lay comporté woo ak société bi moo xam mbokk jege naa jegeñaale yi la moo xam dëkkandoo yi la moo xam gan yi la moo xam sax ñi nga xam ne ni génn nañ ñooñ waaye mu xam yan doxalin la war a doxalee ak moom ak yan comportement la war a comporter ak ñoom naka noonu itam wàll yi nga xam ne ni yaay ji da caa war a concentré wu ci doom ji mooy aljanibul aada bi xamal ko teggiin yi nga xam ne ni moom la l'islam sant jullit mu teggiyinoo ko lu mel ni tegginu lekk tegginu naan tegginu sol yére tegginu nuyoo tegginu booy génn sa kër booy dugg balaa ngaa nelaw boo yeewoo ak teggin yi nga xam ne yépp jullit bi daf ko war a xam di ko pratiquer mu jëm koo jëmbat ci doom ji ci at bu at yu teel naka noonu itam bokk na ci wàll yi nga xam ne ni yaay ji da cee war a bàyyi xel jëmale ko ci doom ji te muy waru garam mooy aljanibul jismi wàllu jëmm ji di toppatoo lekkam di toppatoo naanam di toppatoo wérgi yaramam naka noonu itam di toppatoo ak setam ba tey ci wàll yi nga xam ne ni warugal la ci yaay ji jëm ci doom ji mooy aljanibul aqli mooy côté xel bi fexe ba nàmm xelu xale bi mu mën di xalaat xalaat yu jub di ko jox sax léeg-léeg ay exercice yoo xam ne ni yu pratique la yoo xam ne dafay nàmm xelam gën koo mën a ñawal waaye mu bañ koo bàyyi rek booyal ko noonu mu mel ni ko amul xel ko amul xalaat naka noonu itam sàmm ko ci condition yu baax naka noonu itam di jéem a góorgóorlu lu mu mën ci matala ay soxlaam yi nga xam ne ni soxlaay suba la ak soxlaay ngoon comme niñ ko xamee soxlaay xale lu bari la di soxla yaay ji di ko déglu di soxla yaay ji di foow ak moom lewat ak moom ak yeneen yu dut yooyu yoo xam ne waxtu bi du maye ñu yaatal ci waaye waajur bi wala yaay ji yëg ne saa yu taxawee warugar yi nga xam ne war na ko digganteem ak doom ji ci anam bi nga xam ne ni moom la ko ko diineem sante na yëg ne mi ngi wàññi régler bi nga xam ne ni ëllëg yowmal qiyam borom bi dana ko ko régler su fekkee ne rafetal na borom bi dana ko ko fay rafetal waaye su fekkee ne gàttañ lu ne ci tamit dana diisal boppam ëllëg yowmal qiyam ci régler ba ko borom di régler ndax borom bi kat daf ne ko woon wala yent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko woon sàmm nga ci sa biir kër borom kër sàmm nga ci njaboot gim lay wàccee waaye tamit ëllëg danañ la laaj li nga xam ne nii moom nga doon sàmm kon dañuy jàll ci kon dañuy jàll ci lu gaaw ci ñetteelu tomb bi ndax ñu ne waxtu wi jeex na wala li ci des lu néew la te mooy ay joxañ yoo xam ne nii du ñàkk ñu war koo joxañ wala ay gendeeku yoo xam ne nii war nañ koo gendeeku liñ tàmbalee woon te mooy liy cosaan ci jigéen mu des ci këram taxaw ci warugar bi nga xam ne ni moom moo ko war digganteem ak boroomam digganteem ak boroom këram digganteem ak njaboot gi nga xam ne loolu mooy li nga xam ne moom mooy liy war ci moom moom moo njëkk ci moom te moom mooy liggéeyam bi nga xam ne moom mooy mission bi tax yàlla wàccee ko ci kaw suuf mu taxaw ca taxawaay bim ci war a taxaw loolu moo doon cosaan waaye léeg-léeg jigéen ji mën naa nekk koo xam ne ni ku muttar la soxla imposé ko mu war a mën a génn kër goog pour génn ci société bi wuti leneen wala defi leneen loolu nag charia islamiya du ko ibbi carrément ne jigéen ji saa yu la neexee génnal waaye du ko tëj carrément tamit ba ne ko toogal ci kër gi force ba bul génn ci ak ala kulli xaal moo tax am na ay mbir yoo xam ne nii am na ay mbir yoo xam ne nii fokk mu dajee pour charia mën a bàyyi jigéen ji mu génn këram pour mën a defi leneen bi ci jiitu mooy génn goog nekk loo xam ne nii lum soxla woo la moom ci boppam wala société bi ci boppam soxla woo ko lii cosaan ci loolu mooy xadis boo xam ne yaa Aisha radiyallahu anha moo ko nettali mu ne qad uzinna an taxrujna fi xaajatikunna mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne jigéen ñi may nañ leen ñu génn ci seeni soxla moo tax xadis bi day leeral ne jigéen ji mën naa génn saa yu fekkee ne dafa am soxla waaye boroom xam-xami fiq yi dañuy wax ne alxaajatu tunazzilu tunazzalu manzilata ad-darura amatan kanat aw xaasa mooy soxla dañ koy wàccee wàccuwaayu li nga xam ne ni lu nécessaire la moo xam bu yaatu la wala lu ñu tënk la moo am ay mbir yoo xam ne ni yu dagal la jigéen ja génn sa génn ci sababam bokk na ci mu génn ci sàkku xam-xam wala génn pour xamle ji joxe xam-xam bi nga xam ne moom la am wala mu génn pour dem faji naka noonu itam mu génn pour mën a sàkku fàgg loo xam ne ni lu lew la lu mel ni njaay waaye du daadu wala muy dagan ci jigéen ji muy génn lu dut dafa bàyyi xel teg ci kanamam mbir yi di bëgg a ñëw mooy la koy tax a génn nekk loo xam ne ni lu dagan la warta génn jëm ci benn métier lu dut leer na na attey liggéey boobu noonu muy génn ngir sababam ndax lu dagan la wala lu daganul la ak lan moo ciy atte sharia moo tax al axdari rahimahullah day wax ne la yajuzu lil mukallafi an ya'mala amalan illa an ya'rifa xukma allahi fihi aw kama qaal du jaadu ci jullit bi wala ci mukallaf bi muy jëf benn jëf lu dut bata mu xamee lan moo ciy atte borom bi lan la ci borom bi àtte yàlla tabaraka wa taala tamit di wax ne fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun laaj leen ñi xam su fekkee ne xamu leen naka noonu itam balaa jigéen ji génn ci këram na fekk mu am ci digalu borom këram warta génn mu ko di dem ci benn liggéey lu da ca am digalu borom kër ga naka noonu itam mu liggéey ba muy génn liggéey ba muy génn di ko defi mu bañ koo jural muy gàttañ lu ci liggéey bi nga xam ne ni moom moo doon liggéeyu këram te loolu jigéen ji war na ko mën a xam jamono ji nga xam ne ni mi ngi nekk ci ab liggéey di ci def stage wala mu nekk di def essayer mu xool liggéey bi ndax bu ko continuer dana am lum gàllankoor ci liggéeyu këram wala mu mënu koo gàllankoor
يمكن ما يمكن نصلي في النص الثاني والنص
kon jigéen ji balaa moo engagé wu benn liggéey na xool liggéey boobu nature am ba xam lu muy mën a boole ak liggéeyu këram la wala du ko mën a boole su fekkee ne nekkul lu muy mën a boole mu jéem a wuti beneen liggéey boo xam ne nii bu muy mën a boole la ak liggéey bi nga xam ne ni moom moo ko war ci këram juróomeelu point bi nga xam ne nii jigéen ji war na koo bàyyi xel laata muy gën di liggéey mooy liggéey bi muy liggéey ci biti mu nekk loo xam ne nii lu dëppoo ak nature am la maanaam mu bañ a nekk liggéey boo xam ne nii góor ñi lañ ko miinee lu mel ni mécanicien lu mel ni ménèbre nga xam ne ni dafay soxla doole te jigéen ci ni ko yàlla bindee dafa nekk ku néew kàttan yenn liggéey yi su fekkee ne ràngoo na ko ci biti du ko mën a boole mukk ak taxawaay taxawee warugar bi nga xam ne ni moom moo ko waroon ci biir kër gi naka noonu itam mu sàlluwante ak col gi nga xam ne ni moom la ko sharia rëddal ne bu mu génn këram lu dut noonu la solo mu yaatu bañ a xat naka noonu itam mu yaraax bañ a fatt naka noonu itam mu bañ a nekk taar moom ci boppam mu bañ a niru colug góor mu bañ a niru colug yéeféer yu jigéen ñi naka noonu itam mu bañ a nekk loo xam ne ni lu ñu parfum la ànd ak ne charte yooyu dafa mel ni euh man ak samay moroom a ci yam li ñuy sàlloog moom ci génn rawatina génn di dem ci bërëbu liggéeyukaay yi nekk na loo xam ne nii lu néew la te lu mat a bàyyi xel la ndax ay loraange yu bari mi ngi ciy juddoo juróom ñaareel bi ci yi jigéen ji war a sàlloo bu demee bay génn wala su demee ba nara liggéeyi mu moytu lu mu mën di wéet ak góor ci place ba muy liggéeyee wala di moytu ak jaxasoo goo xam ne da koy am ak góor ñi xëy na loolu suñ mbokk secrétaire yi tamit war nañ cee gën a bàyyi xel nekk ab jigéen ba pare doon secrétaire góor daanaka li ëpp ci sa journée moom ngay wéetal téléphone li ngay wax ak moom ci téléphone daanaka sax doo ko wax ak sa borom kër naka noonu itam ñi nekk ci bërëb bi jàngalekaay yi nga xam ne ni dafa composé ay góor ak ay jigéen ñoom it war nañoo bàyyi xel bu baax ci point boobu léeg-léeg yàlla xam ne da ngay dem ci palaasu jàngalekat yi jàngalekaay yi nga xam ne ni ñi ngi góorgóorlu si sunna luñ mën waaye da ngay gis doxalin bi am diggante jàngalekat yu góor yeeg yu jigéen yi nooy gi ciy am lewatal gi ciy am waxtaan gi ciy am miinante gi ciy am da ngay mujj di xalaat ne xanaa ñii dañoo bokk sax ndey ak baay ànd ak ne dafa nekk loo xam ne nii lu islam insisté la ne dafa xaram kon ki nga xam ne nii mi ngi génn di liggéeyi war naa bàyyi xel bu baax lool rawatina wéet gi ndax boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne wéet góor ak jigéen ci ab bërëb dafa nekk ni loo xam ne lu xaram la ibnu abbas radiallahu anhu day nettali jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne góor du wéet ak jigéen wala warta wéet ak jigéen lu dut kojug armal daf faa nekk lu dut kojug armal daf faa nekk Shawkaani rahimahullah mu ne wéet ak góoru jàmbur dafa nekk loo xam ne boroom xam-xam yépp dañoo dëppoo ci ak xaraamam comme ni nga xamee ne Xaafiz ibn Xajar rahimahullah feddale na ko ci Fathul Baari mu ne li tax ñu tere ko mooy beneen xadis boo xam ne dafa ñëw di wax ne jigéen ji su fekkee dafa wóota wéet ak góor ci place bi ki leen di ñetteel seytaane lay doon te seytaane fépp fu mu nekk jàmm du fa xew su fekkee góor gi wér na ak jigéen ci place seytaane ñëw ñetteel leen la chaque ne muy yàlla mën na faa am mu ne te jamono ji nga xamee ne kojug armal bi teew na bu boobaa mooy yàlla goog ñu doon ragal ci wéetaay ba dana dàq moo tax saa yoo xamee ne góor gi wér na ak jigéen ji ba pare kojug armal teew fa mu ne bu boobaa loolu dana nekk loo xam ne ni lu dagan la lii lenn la ci mbir yi nga xam ne ni jigéen ji su demee ba nar a génn këram dafa war a dajee ci moom mu door a génn du caagi ne yenn yi day dajee yenn yi wuute mu door a génn waaye yépp dañoo war a boole dajee pour génn gi mën a nekk génn goo xam ne nii ku sharia nangu la goo xam ne dana ci am yool fa borom ba waaye dana ci njëriñu tamit ci adunaam ñeenteelu point bi moo doon melokaan wala jikko yi nga xam ne ni ki engagé wu liggéey ci biti war na koo bàyyi xel xëy na du ñàkk ñu jaar ci jaar bu gàtt tënk ko mooy mu jiital ragal yàlla yent bi sallallahu alayhi wasallam daf na ittaqillaha haysuma kunta na nga ragal yàlla fépp foo mënti nekk ki nga xam ne nii jër na yàlla def ko mu nekk ci kanamam mu nekk ki muy contrôler ci liggéey bu mënti nekk patron wu liggéey ba su fa nekkee ak su fa nekkut moo yem ci moom li nga xam ne nii moom mooy sasam ci liggéey bi dina ko taxawee waaye dina ko sellal te jëmmi yàlla ji rek tax li tax mooy fuglu gi nga xam ne ni moom lay la koy fuglu ñaareel ba mooy mu melowoo melowaan melokaan bu rafet yaatu dënn rafet jëfalin jëfa rafet ni muy jëfalee ni muy rafet rafet relation am defar relation am ci diggante ñi nekk ci liggéey bi yépp dañoo déggul wolof dégguñ séeréer moo tax rafetal ni muy doxalee ci ñi nekk ci moo xam entreprise bi la waaye personnelu liggéey bi yépp mu rafetal ak ñoom ni muy doxalee naka noonu itam mu xir ci euh matale liggéeyam ci heure bi nga xam ne ni si lañ ko tënk si lu dul mu di si am ay yéexal wala mu di ko nax saayal naka noonu itam mu góorgóorlu lu mu mën ba ah, saxal ak déggoo digganteem ak ki nga xam ne ni moom mooy patron am ci liggéey bi ndax loolu bokk na ci li nga xam ne ni liy jëmale liggéey bi kanam la bokk na ci li nga xam ne ni lu leen di jëral ak- ak réussite la Euh, naka noonu itam mu respecté règlement intérieur yi nga xam ne nii teg nañ ko ca bërëbu liggéeyukaay bu moo xam société la wala entreprise la mu moytu mukk di wute ak règlement yooyu mu nekk koo xam ne nii tamit ku fier ci liggéeyam la loolu moo koy yóbbee mu mën koo bëgg mën saa su nekk muy sawar saa yu jëmee ci liggéey boobu naka noonu itam mu nekk ku màndu di moytu di far ak ñi contre ñi ndax loolu bokk na ci yi nga xam ne nii dafay daaneel ab société wala muy daaneel ab entreprise naka noonu itam balaa moo méngoo benn liggéey mu leerlu lépp li nga xam ne ni lu aju ci liggéey bi la ci ay détails ñu leeralal ko ko balaa moo dugg ci liggéey ba ndax su loolu amul mën naa am ay wàll yoo xam ne nii mën na caa daaneel euh, liggéey bi nga xam ne ni moom lay méngoo moom lay ràngoo naka noonu itam mu respecté boppam si lu dut muy puukarewu waaye mu jéem a oyofal boppam wàccee boppam tamit si lu dut mu yëg ak tuuti wala ak doyadal naka noonu itam mu moytu lu mu mën di toxal ay kàddu di ko jëmale ci ki nga xam ne ni moom moo leen jiite loo xam ne ni luy jur ay njaxas la wala mu mën a jur ak yàqute ci biir liggéey bi euh naka noonu itam point bu am solo boo xam ne ni jar na liggéeykat yi di ko bàyyi xel ci jamono ji mooy concentré wu ci heure liggéey yi ci liggéey bi moytu di concentré wu ci téléphone yi woote wante yi envoyé wante message yi naka noonu itam photo wante yi concentré wu ci heure liggéey bi ba nga xam ne ni li liggéey bi soxla woo moom lañ koy jox waaye téléphone yi tamit ñu jéem koo limité kem kàttan xëy na du mën a nekk sax éliminer ko carrément waaye lu dul urgence ñu di ko moytu ci heure liggéey yi naka noonu itam euh mu nekk ku wóor ci alal ji nga xam ne ni moom lañ koy dénk naka noonu itam mu nekk ku wóor ci secret yi nga xam ne ni mi ngi dox ci biir liggéey bi mu bañ lenn di ci génn fekk ci yoonam la jaar mu moytu tamit nekk escalier boo xam ne ni nit day yëg ci moom pour daaneel liggéeyu ka muy liggéeyal léeg-léeg concurrent yi am ci diggante liggéeykat yi am ñu nekk ci biti ñoo xam ne ni dañuy bëgg di jaar ci kenn ci ñiy liggéey ci biir entreprise bi wala société bi pour mën a xool ban yoon la ñuy jaar ba daane bi société liggéeykat bi na moytu lu mu mën pour doon ko nga xam ne nii ci moom la ñuy jaaree pour yàq liggéey bi naka noonu itam mu góorgóorlu lu mu mën su fekkee ne am na wuute ak ay gaar-gaar yu gaar digganteem ak patron am ci liggéey mu euh, defar ko ci ak xaritoo ak mbokkoo xool nuñ euh, nuñ jàppalante ba mbir yooyu yemb su lu muy def saa su nekk lu gaar rek mu yëkkati ko yóbbu ko ci yoon ndax loolu dina nekk loo xam ne dina yàq liggéeyu nit ki waaye dana yàqal liggéeyam ndax dina ko yóbbee ay yoon yi dem ci yoon ak yéeg ak wàcc yoo xam ne ni lu mënoon a ñàkk la naka noonu itam liggéey bu nekk dana am koo xam ne ni moom moo jiitu ak ka ca topp muy nangoo wommatul ki nga xam ne ni moom ci moom la war a topp même su fekkee ne sax moom da koo ëpp niveau ci xam-xam wala da koo ëpp niveau ci diplôme waaye patron wu liggéey bi ki nga xam ne ni moom la tànn teg ko ci kaw na jéem kéemtalaay kàttanam ba nangoo topp ci kaw koog noonu lii tënk mbir yi daal mooy waxi yonent yàlla Yusuf alayhi salaam ba mu waxoon ba muy jël euh nguur ga inni xafizun alim xafizun alim ku mën a sàmm laa waaye ku xam mbir yi nan laa koy doxalee la naka noonu itam yonent yàlla euh, Musa alayhi salaam ba ñaari doomi Shuayb yooyu di gaaral seen baay na ko jël bokkoon na ci jikko yi taxoon ñu gaaral ko ko inna xayra man istajarta alqawiyul amin bokk na wala ki gën ci ñi nga tànn ñu doonal la ab liggéeykat mooy koo xam ne ni dafa nekk ku wóor waaye dafa nekk tamit ku am kàttan kon si tënk liggéeykat bi war naa fexe yooyu dajee ci moom mooy mu xam la muy liggéey waaye mu nekk ku wóor waaye mu nekk koo xam ne ni ku am kàttanu taxawee liggéey booba la xam naa tomb bu mujj bi si lañ yegsi ñu jéem koo tënk moom itam mooy alwasatiyatu bayna alwaajibil manzili wal amalil wazifi bal mooy sax li ëpp solo ci waxtaan bi mooy mbir yi nga xam ne ni dina dimbale jigéenu jullit bi ba saa yu bëgg a boole liggéeyu këram bi nga xam ne ni moom mooy waru garam bi njëkk ak liggéeyu bitim bi nga xam ne ni bum tegaat ci kawam la mu mën leena boole fekk du am benn faay bu am ci diggante bi loolu bi ci jiitu mooy jigéen ji nekk koo xam ne nii ku am kàttanu mën a boole ñaar yi la ndax léeg-léeg jigéen ji nekk koo xam ne ku néew doole lay doon ba nga xam ne léeg-léeg sax taxaw ci liggéeyu këram lu muy lott la su fekkee nan na ko boole ak liggéeyu biti dina yëg ne bu boobaa fayda ciy am kon na nekk koo xam ne nii ku am kàttanu mën a boole ñaari liggéey yooyu lay doon kàttan ga nag kàttan ga cay jiitu mooy kàttanu pas-pas bu wér euh ngëm gu sax ndax léeg-léeg mbir yi ci xol gi lay nekk nit ki mën naa nekk ku bindam néew tuuti waaye du tere xol ba dana nekk xol bu rëy ndax ngëm ga nga xam ne ni moom moo ci nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne woon al mu'minu al qawi xayrun wa ahabbu ila allah min al mu'mini ad da'if jullit bi nga xam ne ni dafa am kàttan moom moo gën te moom moo gënal yàlla ki nga xam ne ni dafa néew doole naka noonu itam mu nekk ku capable ci boole ñaari liggéey yi fekk du ci lor benn ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne inna allaha yuhibbu min al mar'i idha amila amalan an yutqinahu yàlla dafa bëgg ci nit ki su fekkee dafay jëf benn jëf mu nekk loo xam ne lu maîtriser la kon jigéen ji bum nangoo engagé wu liggéey ci biti fekk yëg na ne mënu koo boole ak liggéey bi nga xam ne ni moom moo nekk ci kër gi ñetteel bi mooy mu sàlloo tasbixaat yi nga xam ne ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo jàngale jullit bi war di ko def laata muy tëdd tamay subhanallah ñetti yoon alhamdulillah ñetti yoon subhanallah fanweer yoon ak ñett alhamdulillah fanweer yoon ak ñett allahu akbar fanweer yoon ak ñeent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba Fatima radiyallahu anha ñëwee di ko jàmbatal coono gu muy daj ci këram ak liggéey bi num diisee ci moom doon sàkku ci moom mu jox ko benn jaam boo xam ne ni daf koy dimbale loolu la ko dénkoon te képp ku ko essayé dina yëg ne nii am na jàppandal gu mag goo xam ne nii dina ko am ci ménage am waaye dana ko am ci bépp liggéeyam ñeenteel bi mooy at taxtitul waadix lil amali al yawmi al manzili wal wazifi maam mooy mu teg plan bu leer boo xam ne nii mooy làmboo liggéey bi nga xam ne nii moom la am ci kër gi ak liggéey bi nga xam ne nii moom la am ci biti li ko commencé ci subaam ba fi muy tëddee xam ne man mii kat su ma yeewoo lii laa war a njëkk a def gannaaw bu ma jullee ba pare danaa bale sama biir kër wala dinaa defar sama néeg danaa commencer taal sama añ ba sept heures et demi ala sabilil misaal sept heures et demi ma commencer préparer defaral sëñ bi mu ndékki ak lu ci aju huit heures ma commencer sangu waaj war a jëm ci sama liggéey comme neuf heures lay commencer loolu ala sabilil misaal la mu teg ko ci plan boo xam ne bu leer lay doon boo xam ne bu muy bind lay doon te di ci nattu boppam saa su ne di xool ndax moom plan bii mu teg kat mi ngi koy maîtriser wala maîtriser wu ko si loolu lay mën a jubbantee boppam ba mën a tegu ci yoon bi nga xam ne nii dina ko sakkanalal heuram ndax saa yu tegee plan boobu rek heuram dina sakkan ba mu mën- li mu war a def yépp dina ci mën a xaj bu boobaa euh juróom-benneel bi mooy mu dimbali ko ab bon boo xam ne ni dina ko mën a jàppale ci lenn ci liggéeyu kër gi lu mel ni raxas lu mel ni fomp lu mel ni euh, yenn nettoyer yu mel ni yenn rangele yi waaye mu moytu tamit di teg liggéeykat boobu wala bon boobu loo xam ne ni du ko attan ndax yent bi sallallahu alayhi wasallam daf noon wala tukallifuhum ma la yatiqun fa in kallaftumuhum fa a'inuhum bu leen leen teg mukk loo xam ne ni duñ ko attan su fekkee ne def ngeen loolu na ngeen leen ci jàppale kon na nga moytu di teg liggéeykat boobu nga- nga xam ne moom ngay dimbandikoo te moytu di ko bàyyee lépp li nga xam ne ni moom mooy sa liggéeyu kër ndax yow yaay responsable bi waaye nga góorgóorlu loo mën itam ba mu nekk koo xam ne ni ku am jikko yu rafet la mu nekk koo xam ne ni ku am diine la ndax mu bañ a jeexital ci sa njaboot ëllëg euh xam naa juróom-ñaareelu point bi temps Aïcha boo moytu dama la koy bàyyee nga wax ko ndax damay ragal su ma paree ñu kiima ci buntu ba fee mën naa koo wax après di nga ma kii te mooy jigéen ñi jéem a ibbi seen xol yi jéem a xajal ñeneen ñi mën a dugg ci. ah saa yu si yaa ma garanti woon de jigéen ñi jéem a ibbi seen xol yi jéem a nangu góor ñi indi ñaareel yi indi ñetteel yi su ko defee loolu dina nekkal jigéen ji dimbal si fan yi nga xam ne nii moom aayewu ko ci góor gi mu mën a taxaw si warugaru kër gi nam ko war a taxawee waaye mu mën a concentré wu tamit ci liggéey bi nga xam ne ni moom la am ci biti ndax dina am beneen espace de temps boo xam ne ni dina ci mën a taxawee ay mbiru boppam mën see organiser loo xam ne ni mënu ko woon a lii naka noonu itam dina garantir góor gi mu mën a am chaque fois toppatoo ndax jigéen ji nga xam ne ni mi ngi génn di dem di liggéey di ñëw léeg-léeg dina yegg ci sonn foo xam ne nii pour mu satisfaire jëkkër ji lu jafe lay doon suñ waxantee dëgg rek su fekkee ne nag góor gi dem na ci keneen wala dem na ci ñeneen jamono jam fa nekk moom dina mën a préparer waat boppam mën a beesalaat sax occasion lay doon ci moom ba nga xam ne su borom kër gi ñëwee dana gën a mën a taxawaat ci warugar yi nga xam ne ni moom moo waroon ci moom juróom ñetteel bi mooy euh, yenn ci feet yi nga xam ne ni da koy am wala congé yi nga xam ne ni daf koy am wala sax week-end yi mu bañ di si ut yeneen liggéey supplémentaire yoo xam ne ni daf ci ut yeneen fàggu waaye mu concentré wu toog ci këram pour gën a toppatoo waat këram gën a organiser waat këram gën a taxawaat ci njaboot gi waaye mu bàyyi intérêt yooyu nga xam ne ni xëy na doon na ko séentu ne su fekkee ne liggéey na heure yooyu noonu euh, mën na cee amaat dara naka noonu itam heure yi nga xam ne ni moom la am ci barabu liggéeyukaay ba mu bañ di ut lum ciy dolli su fekkee huit heures de temps la am huit heures de temps yi su jeexee mu dellu ci këram su fekkee lu ko gën a néew la tamit bu jeexee mu dellu ci këram euh, juróom-ñeenteel bi mooy muy dimbandikoo euh, demukaay yi nga xam ne ni ñoom ñoo gën a gaaw lu mel ni taxi wala bu fekkee jàppandewul kalandoo wala léeg-léeg tata mu maytu euh, oto yi nga xam ne léeg-léeg su ko jëlee pour dem këram mën na koo yéexal ci mu yegg këram mën naa def temps bu yàgg pour mën a yegg këram loolu itam euh, bàyyiwaale ci xel jaxasoo bi nga xam ne ni dafay am ci moyen de transport yi tamit lu ci am solo la jigéen ji di moytu lum man ci jaxasoo boobu moo xam ci biir tata yi la wala léeg-léeg sax ci biir oto yu ndaw yi la mu daw lum mën jaxasoo boobu noonu naka noonu itam su fekkee ne diggante fa muy liggéeyee ak fa mu dëkk xëy na soriwut soriwaay boo xam ne nii lu mu mën a dugg oto la waaye jegewut jegewaay boo xam ne nii du jël ci moom temps bu bari mu di ko jëlal oto léeg-léeg da ngay gis koo xam ne dafay pour sakkanal li nga xam ne nii da koy am ci weer wi day tax su wàccee pour mu ñibbi këram dafay dox waa xëy na sax mën naa nekk sport waaye mën naa nekk itam sakkanal li nga xam ne ni moom lay am dox diggante boobu noonu pour mën a yegg këram dox boobu dina ko yokk coono ba nga xam ne nii bu yegsee ci kër gi xëy na lam doon war a def mën na koo bañ a mën a taxawee naka noonu itam euh, mën naa gën a yàggal yoonam ba nga xam ne nii heure bi mu waroon a def ci ci kër gi dina ko yéexal tuuti euh, ki nga xam ne nii tamit dafa bëgg a boole ñaari liggéey yi mu moytu lim mën di engagé wu ci biti liggéey boo xam ne nii daf koy soril kër ga diir bu yàgg lu mel ni liggéeyu état bi nga xam ne léeg-léeg day soxlawoo réunion yu gudd yoo xam ne daanaka journée bi lay jël wala soxlawoo ay génn yoo xam ne ni nit ki da koy génn këram dem ci yeneeni place am fa ay fan naka noonu itam affectation yi nga xam ne léeg-léeg dañ koy affecté nit ki dëkk ba dëkk mu war a dem bàyyi njabootam bàyyi biir këram ki nga xam ne ni dafa bëgg a boole ñaari liggéey yooyu fekk du ci am benn faay war naa góorgóorlu bàyyi xel lool ñi ngi ma ciy nettali benn jigéen boo xam ne nii daf ko defoon toog na weer boo xam ne borom kër gi gisul ko ba loolu amee mu dellusiwaat mu dajale ay mbokkam ne leen soxna ngeen ma mayoon boo xam ne sama jabar la woon duna naa nag weer boo xam ne xaw ma ci moom dara mi ngi nii diggante réunion diggante nangam diggante nangam fi mu ne nag na tànn imma sëyam wala mu dem ci liggéeyam mu ne ko tànn naa sama liggéey kon may ma baat kon bokk na ci mbir yi nga xam ne ni yuy yàq ménage yi la lu mat a bàyyi xel la bi ñuy mujjee mooy jigéen ji góorgóorlu lu mën ñaan borom bi nga xam ne ni moom moo mën a maye tawfiq mu tawfiqal ko mu boole ñaari muhimma yooyu fekk benn du ci am faay ndax borom bi lépp lu jafe boo ko ko ñaanee mën na koo yombalal ci mën na la koo yombalal ci kàttanam ak ci mbaaxam kon ci loolu lañuy waxee ne su fekkee guddal na ñi ngi jéggalu waaye su fekkee gàttañ leen tamit gàttañ lu nañ ñi ngi leen di baalu àq in aradna illa al islaha mastata'na wa ma tawfiquna illa billah alayhi tawakkalna wa ilayhi anabna hada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum
wallahi wa barakatuhu kon soxna Aïcha masha Allah ñu ngi lay wax jazakillah xayran yal na yàlla fay la te barkeel la da barkeelal xam-xam bi kon mbokk yi incha allah ñu xaar tuuti rek ñu eggale bu ko defee buñ génnee julli buñ jullee ba pare bu fekkee xaj na fi ñu daal di bu fekkee maanaam xéewalu sàmbee neeg siise yi noppeegul ñu daal di yéegaat bu no fekk ñu daal di koy xaar bu fekkee noppeegul nag ñu daal di yéeg eggalewaat liggéey ba kera mooy noppi kon ñu eggale tuuti rek incha allah bu ko defee ñu wàcc ñun ñëpp julli ndax xam nañ ne heure bi jot na waaye itam liggéey bi itam dafa toll woon foo xam ne si il faut ñu eggale ko ni te moxtaar mi tamit jeexagul kon ñu may ñu tuuti rek incha allah ñu eggale bu ko defee ñu daal di wàcc ñu ñëpp daal di julli kon ñu ngi sant suñu doom soxna Aïcha macha allah thème bi am na solo torop wax dëgg yàlla waxtaan na fi waxtaan woo xam ne wax dëgg yàlla yàlla nañ ko jariñoo ñun ñëpp ndax lii dafa nekk loo xam si dafa daf ñoo gaar ñun ñëpp maanaam diggante bëgg a dem defi leneen ak bëgg a yor sa kër dafa nekk ñaar yoo xam ne ak yor sa njaboot ñett dafa yombul lenn lu ci nekk rek. dem yor sa kër rek ak njaboot liggéey la génn dem tamit liggéey la ñaari liggéey nag bu dajee ci benn jigéen mu bëgg ko def te bëgg yépp yéwén loolu dafa laaj farlu gu mag a mag a mag a mag soxna Aïcha lim ñu lay taayal rek doyoon na conférence maanaam lay taay gi nga xam moom la lay taayal ci lislaam nan la jàppe jigéen ak teraanga gi nga xam moom la ko teral ak jigéen naka la war a xame loolu ak naka la ko jàppe loolu rek doyoon na waxtaan mu ñëw nag ci lu nga xam ne moo war jigéen ji nga xam ne dafay liggéey kilifteef gi nga xam ne war na koo jàppee borom këram ndax am na ñu bëree bëri ñoo xam ne bu ñu commencé di liggéey commencé di am xaalis commencé di kii rek cër bi ñu war a jox seen borom kër dëgg-dëgg dafay wàññeeku duñu ko joxati ndax liy nekk seen kanam toujours mooy seen liggéey mooy seen xaalis mooy lañ cay amee waaye nag nañ xam ne liggéey bi mooy deuxième position li nga xam ne moo njëkk mooy borom kër bi ak njaboot gi kon ñu góorgóorlu liggéey bu ci waay mën a jàpp tamit ki nga xam ne mooy borom kër gi di kilifa gi nga jox ko place bi ak wàccuwaay bi nga xam ne moom la am soxna Aïcha wax na li nga xam ne topp gi soxna si war a topp borom kër bi feeg lim koy toppee nekkul loo xam ne sunu naqari sunu borom la wax na ko wax na xadis bi ci wàcc yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi wax ne jigéen bu jullee woor weeru koor sàmm boppam topp borom këram dina dugg àjjana ci bunt bu ko neexee kon topp borom kër dafa nekk ci jaamu yàlla yi nga xam nit ki dafa war a xam ne ci la bokk wax na tamit euh, maanaam euh, sax gi jigéen war a sax ci euh, këram bu fekkee du benn ngant wala du loo xam ne si liggéey bi dafa dagan kon li gën ëpp solo mooy jigéen ji toog ci biir këram yor njabootam jigéen tamit naka la war a sàmme alalam alalu jëkkëram wax na ko naka la ko war a sàmme ci dund ba muy indi ca kër gaag courant ba ñuy utiliser ca kër gaag ndox ma ñuy utiliser ca kër gaag ndax olof yi day bët du yan waaye xam na lu bopp àttan ndax kenn ku ci ñun ku ci amoon facture tey ji ñu di la ko yéenee par weer bu dee bu ne noo ko mën a économiser di nga ko économiser noonu kii tamit yéen a bokk njaboot gi boroom kër la am na yeneen yeneen yu ko war kon même bu fekkee am na ko amu ko na nga góorgóorlu ba loo ko mën a sàmmee nga sàmm ko ndax xale yi li ci gën a bari xamuñu sax ndox nuñ ko utiliser waaye yow yaa leen di jàngal surtout ay doom yu jigéen di leen yar ba bu ëllëgee bu ñu demee feneen sax ñoom diñu mën a xam nu ñuy économiser seen alalu borom kër kon ñu góorgóorlu sàmm ko bu baax wax na tamit jëflante bu rafet bi nga xam ne moo war a jaar ci diggante borom kër ak soxnaam dem na sax ba indi ci li nga xam ne jigéen noonu la war a toppatoo boppam ci wàllu taar ak war a toppatoo boppam ak wàllu góorgóorlu ba nga xam ne sa borom kër bu duggee ci kër gi dina kontaan waaye du sonn am soo ba ngoon mu ñëw bu ñëwee fekk ci kër gi loo xam ne du ko kontaan loo ci wàllu organiser kër gi nañ koy ranger loolu lépp foo wax soxna ay soxna ci kon ñu góorgóorlu képp koo xam suñu borom dalaa nattoo ngay góorgóorlu di génn di dem di liggéey waaye nga góorgóorlu tam ci kër gi man dama naa li ci ëpp solo nag soxna yi mooy teel a yeewu maa ngi dañ naan teel a yeewu jànq la boo teelee yeewu di nga mën a gañ a temps bu bari waaye tamit munoo bu ma xëyee damay liggéey tey bu may nelaw damay nelaw ba doyal sëkk nelaw yi moom il faut ñu wàññi ko boo jullee suba ba pare wala balaa ngay julli suba fekk na am nga loo def ndax am na ñoo xam ne bu ñu amul jàng cinq heures du matin dina fekk ñu jóg taal ndax warugar la warugar la da ngay dañ dañi di liggéey liggéey ba waaye nam na nga góorgóorlu ba kër gi tamit na nekk kër ndax ak njaboot nga fi bàyyi ay nit nga fi bàyyi boroom kër nga ko seqal boo xam dafa am loo xam sa warugar wala war ci moom kon liggéey rek nekkul aw lay woo xam damay liggéey sama yoon nekku ci la war na nga góorgóorlu ndax buñ góorgóorloo rek comme ni ma ko waxee tasbihaat yi nga xam ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam digaloon na ko Seydina Fatima nee na boo ko jàppoo dafay jàppandi kon nit ki looy def ngay tudd borom bi subhaanahu wa taala yàlla da ci def barke mu jàppandi lool ci wàllu li nga xam ne si mooy kër gi ci wàllu liggéey ba tamit wax na ca nit ki ni mu ko war a sàmmonte ni mu war a amee war a am ak ragal yàlla ni mu war a amee yaatu dënn ndax am na liggéey kon yoo xam tamit boo leen jëlee tey ñuy liggéey wala ñu jël leen sax ñuy liggéey dañuy yàq sa liggéey ndax li yàq sa liggéey mooy yaatu dënn ndax ni liggéey kat dina gis ku nekk dina gis ku nite dina gis ku tàng dina gis ku naqari deret waaye yow surtout boo nekkee koo xam si da ngay daje ak nit ñi il faut nga yaatu dënn boo yaatul dënn di nga yàqal sa bopp di nga yàqal ki ngay liggéeyal kon ñu góorgóorlu loolu tamit wax ci mbir mu am am solo règlement yi nga xam ne moom lañ fa tëral tamit nga respecté ko nga maandu ci côté bu nekk ndax it bu nekk benn buntu boo xam ne si ku bëgg a def dara wala ku bëgg a wax dara ci yow la koy jaare loolu yëpp soxna Aïcha leeral na ko ci biir waxtaanam wax na ni tamit nit ki li ngay liggéey da nga ko war a mën parce que yenn saa yi di nga engagé kenn wala nit liggéeykat yi sax ci li muy li ñu koy engagé munu ko waaye salaire bi ñu koy fay ak li muy am moom la teg ci boppam kon nit ki ne war na ragal yàlla lépp loo xam ne munu ko nga lii du sama domaine lii de munuma ko ba doo dugg ci loo xam ne si daf lay yàqal ëllëg waaye da ngay yàqal ki nga xam ne moom ngay liggéeyee dimbalante ak ki nga xam ne moom nga teg ci kër gi mooy jànq bi ndax tamit jànq yi wax dëgg yàlla macha allah dañuy liggéey dañuy daan seen doole waaye bul jël lépp lépp lépp nga teg ko ndax nit tam boo ko tegee lu mënul du du ko def boo ko tegee lu mënul du ko def wala bu ko defee tamit defit ba du rafet xool am ak ñaw torop tamit ci niñ leen di tànnee ak niñ leen di seetloo waaye du ku ñëw ku ne bu may liggéey ndax bés bu nekk ñu dégg ko comme ni ko Oustaz doon wax ci média yi bés bu ne ñu dégg jànq boo xam dafa sàcc jànq boo xam dafa def lii jànq boo xam yenn saa yi nga jël ci koo xam si day yàq sax sa kër bu ko defee ñu xool am ak ñaw bu baax a baax ci li nga xam si noonu lañ leen di tànne bu ko defee nee na tamit ci point bi nga xam ne si moom la doon wax ni ndax moom mun na ko wax wala mënu koo wax ñu am ak yaatu ci bàyyi borom kër yi ñuy wuti keneen ndax am na ñoo xam tamit wax dëgg yàlla man damay jàpp ne sax lu ci am solo la ndax boo toggee ñaari fan wala nga togg ñeenti fan sa morom jëlaat togg ñeenti fan dina la gën a mën a dimbali waaye dina la mën a gën a jàppale waaye dina tax tamit nag wax dëgg yàlla balaa borom kër bi ñëwaat sëñ bi bu ko defee nga gën koo jekkuwaat gën a jekkuwaat sa bopp baax a baax loolu tamit il faut ñu am ci xel bu baax sama benn euh, xarit rakkam euh, benn bis dañ ko mayee mu nekk ñaareel man ko yow nga nekk ñaar mu taan ay sa mu naa ma ñun fi mu nekk ak liggéey bi ñuy liggéey kenn mënut satisfaire benn góor benn góor benn jigéen bu ko satisfaire ci ay colam ak ci ay lekkam ak ay lii mun ma il faut ñu nangu ko rek buñ ko nangoo rek bu ko defee ndax nangul nañu ñu génn di liggéey ñun il faut bu ko defee ñu daal leen nangul li nga xam ne mooy euh, suñu mbokku daara yi nga xam ñoom lañu yàlla booleel bu ko defee ñuy rafetal bu baax a baax jëme ci ñoom soxna Aïssa nee na ñu bañ a yor rek jikkoy aaw maanaam fi ngay liggéey bu soriwul wala yooyu jar na sax même buñ la joxee paas taxi sax nga nga nga jël kaar wala nga di ko dox fu ne nga taxawaalu fa loolu tamit dina indi ay ñagas-ñagas nee na bu fa paas taxi ba nekkee ngay jël taxi bu fa leneen nekkee tam nga góorgóorlu waaye loo mën tamit nga def ko nee na tamit du ngay liggéey ba pare samedi ak dimanche di jot rek nga daal di koy wutal programme ah am nañ àq nag njaboot gi am nañ àq ci ñun borom kër bi tamit am na àq ci ñun dëkkaale yi ñi nga xam ñoom lañ dëkkal bokku lépp it am nañ àq ci ñun waaye programme moom bus bu nekk danga koy am waaye yenn saa yi nga xaw a gé- am na programme yoo xam wax dëgg yàlla ak ngente yeeg ceet yeeg bu fa mënta bañ a egg it nga egg fa egg boo xam ni eggu defar mbokk la eggu diggante jullit ak morom la waaye xëy suba ba ngoon samedi ak dimanche da nga am yépp nga nekk fa nekk fa ba nga xam ne si wax dëgg yàlla xamoo dara bu altine nga bëgg a xëy loolu tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon defe naa waxtaan bi am na solo macha allah li nga xam ne si moo ci tegu bu ñu de bu ñu yéegaatee bu ko defee ci thème yi ñu doon waxtaanee yépp kenn ku nekk loo ci xam. ñu gis ci sa bopp nga bind ci wala ñu jox la kàddu nga ñëw ndax mbir mi nga xam ne si moom lañ am muy congrès bi incha allah lenn rek la ñun ñëpp dañuy daje di waxtaan di defaru di defarante di génn ay xalaat ndax yàlla incha allah taala ñu am ci ak yéwanoo wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin kon duñ def lu dul wàcc julli buñ jullee ba noppi bu fi xajee ñu ñëwaat bu fi xaju tamit ñu xaar xeewal yi bu noppee ñu yéegaat incha ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم